lan moo waral nag moom mu taxaw rek ni man maa moom Sénégal tegg naa yoon yu ma tegoon toggoon ko ba mu ñor ma def dama ci def sama caax ni dama ci jàpp ay jën ma dugg ci caax bi jàpp ma man damay génnaat ci loolu mu dëgg mais dëgg nag da koy xeex mm-hmm. dafa dagan mm-hmm. donc ñun waxuñu rek dañuy dal ci kaw magis dañu ni conseil constitutionnel Macky Sall la ñu liggéeyal conseil constitutionnel Ablaye Wade lañ fi jëloon jàllale ko fi mm-hmm. ni ko am na droit conseil constitutionnel bi mu ne Ablaye Wade mën nga dem élection mais ñun ñëpp daal ñëpp daal ci kawam y compris Macky Sall amul lu mu leen yekkul y a eu même des morts y a amul lu mu leen yekkul kon nag loolu moo tax ba tey ñun tam ñu nii doo taxaw rek nii déet da nga sur te base sur des principes ñu te nag lii xeexu képp koo xam ne ki da nga amoon sa sa sa sa candidature muy Serigne Mboup muy Bougane muy keneen xeexu ñëpp la ñëpp fekk xeexu ñëpp la ndax Macky Sall warul jàll wala boog bu jàllee ñi mu jëloon dindi leen ci parrainage yëpp nañu dugg ñëpp ñëpp candidat loolu mooy jàmm ah mais conseil constitutionnel mais dans ces conditions là la loi nag la loi fu ñu koy teg jaamaarloo bi surtout. jaamaarloo bi fi mu lu ne mën na ci tukkee. Euh. parce que bu fekkee dangeen jàpp fi ngeen jàpp moom mu jàpp fi mu jàpp te li ñu seetlu mooy conseil constitutionnel ŋàññi ngeen ko donc arbitrage am léegi doyatu leen muy benn société civile bi nga xam ni waroon na taxaw ci diggante bi yombal jokkalante bi am na sax ñu nekk ay acteurs ŋàññi leen. ni seen taxawaay wuñ leen ñooñu ñuy wooyee les régulateurs sociaux euh, authentiques moo xam sëriñ seeg yooyu. Mhm. ci bëri am na lu ñu maandu ci situation bi waaw fu ñu jëm. ah kooku de mu ngi ci loxo Macky Sall. Hmm. léegi daal Macky moo tooñ peuple sénégalais moo bëgg a foqar ñi suñu démocratie suñu loxo lox amul nag ci àddina bi fii lu ñu mënul fiddi ay nit lañu ñu di du ñu ay malaaka du ñu ay jinne ci ja àddina bii la ñu taxaw. xeex jotee da di xeex. kon nag li amul doo xam am loo gis rek am na fu ñu ko mën a jaarale barkele ko. Hmm. waaw mais lii moom du passé parce que nag mënu loo jàll nga jàll ba war a tinte dem ñeneen yu duñu jàll naan leen dem leen jël li suppléant suñuy suppléant wóolu leen leen ñoo leen tànn de mais c'est sur le principe moom warul dem ba pare di nit ñu du ngeen jàll. ba pare nag fi def loo xam ne kenn mësu ko gis di séparer liste suppléant. waaw loolu moom loolu mu ah waaw xam nga loolu moom tamit. dafa yéen a lu gulet gulet la. gulet mais lu tax ñuy dangu a un principe. de l'unicité des listes. mais nag conseil liste bala ñu ko nangu mu am titulaire ah, am suppléant. man nag waaw ah, naka ngay mën a accepter un conseil constitutionnel buy def loolu. ah naka ngay mën a accepter conseil conseil bu ñëw te te jël waa ni ci dëgg ci tànkam ba ba écraser ko ni nii laay def ndax Macky Sall moom ko sant. mais ñooñu du ñu conséquence ñooñu ay nit lañu juróom-ñaari nit lañu yoo xam ne nag mënuñu ñëw jël Sénégal bëgg ko dëxañ nag. riñaan ko riñaan loi yi ñu ne nag nañ leen topp rek ndax ñun ay ndax ñoom ñoo fi ne déedéet. li wax ji wax ji mooy. on a l'impression que impasse. impasse bu rëy am na am na am na mais impasse am na mais yoon am na. Mm, am na lu xaw mais yoon bu fekkee le conseil constitutionnel moom décidé na li muy décidé. ba mm-hmm. pare li muy décidé. xam nga indiwaat leneen. mooy ah, xam nga des xam nga xam nga décidé li hmm. nga décidé dem na bëtt ji. ñu lay garder. am na nag nga xam ne am nga xam ne war nga war nga sa bopp am na nag am na nag. am na ah, benn am na am na cas cas de la Côte d'Ivoire avec Yaoundé. conseil constitutionnel bu tabb ñaari président te li mu tabbee ki njëkk ki nga xam ne valable woon mhm. ba muy tag bi ki keneen ki <laughs> lu mel la ko waxal donc gis nañ fi lu ne vraiment en Afrique ça pose un problème quand am na nag mais ça pose un a des présidents comme Macky Sall defe ne euh, comme des présidents comme Ouattara des présidents comme euh, euh, Alpha mi ngi li gis nga nan nañu Macky Sall na moytu boppam gis nga dada Alpha Condé Alpha Condé defoon na ni yàlla moo ko teg fi mu toog rek ba du fa jóg hmm. defoon na ne du jóge fu mu jóge mu di dóore di tëje lu ñu lu ñu ji lu mu jiin xet kon nag ñaanuñu yàlla Sénégal topp topp topp ci loolu Sénégal dëgg dëgg ñaana ñaanuñu yàlla loolu ñaanatuñu yàlla benn bakkan di wadd parce que vitrine la ñu waaw waaye nag vitrine la ñu waaw mais ñun dootuñu vitrine kat vitrine fu ñu nekkati vitrine non non je veux dire par rapport ak ñu vitrine léegi suñu xala xaar mais dans un pays non at mënoo comparer Sénégal ak Guinée may ma dans un pays où il y a eu ñaari alternance de manière démocratique amul Guinée non vitrine la ba léegi. dëgg am na ay fell comparé à ces pays am na ay fell fell waaye vitrine la am na fell waaye vraiment cra craquelé ah. mais nag mënoo ñu comparer situation Guinée. le Sénégal du point de vue démocratique am na jiitu nag bu mu jiiti Guinée. loolu mën nañu ko wax. mais y a un recul mais nag. am na dëgg mais on a un recul démocratique notoire. ci lu bare ci fànn yu bare basically le fait de pouvoir de ma am marche constitution may la ko. Mhm. nga naan am ngeen droit ak amu leen droit rek déjà kooku c'est un recul. dëgg la Ablaye dafa ñëw ni brassard rouge ku am loo la naq takkal sa brassard rouge. loolu du recul. le fait que ñun Sénégalais waruñu ne man daf naq na ma damay dem gis nga suñu waalo gee ñun naa dem suñu message 1700 hectares marche. Mhm. te ñu koy waaj maa ngi wax nii. bu ñuy dem sous-préfet ñu amu leen droit marche te bés bu ñu nitam ni leen kaay leen ñu marche ndax sénégalais bañ a importer ci waaye ñun bis bu ñu nee dañu marche pour suñu mille sept suñu mille sept cent hectares yi ñu bëgg a nangu déplacer suñuy janaase ah. déplacer suñuy suñuy tool ah. déplacer fi ñuy suñuy zone de ñu ni am leen droit marche déedéet xam nga maanaam amu fa kenn kuy sànni xeer loolu moo dul dëgg du dëgg dëgg la Babacar léegi xam naa ñu xuus ci koom-koom bi oh, waaw si koom-koom voilà koom-koom parce que fa la doon dem nii en tant mhm. qu'économiste d'ailleurs mais nan nga nan nga jàngatee président Macky Sall bi fële ah, na <laughs> ndax nag li ngay wax eh, eh, ni exemple démocratique dëkk boo xam ne bi yaa ngi am jàmm ak salaam yaa ngi am ndox mu neex am suuf su joxande mi di ñoo di xëccoo mm. am nit yu xarañ am nit yu nangu liggéey mm. nga di nga di daaw sa budget bi nga collecté collecté yokku na yokk na te centaine de kile de milliards mm. ni man kat damay anticiper parce que gouverner c'est anticiper. naa dem bay lu ma lu ñu mën a lekk. yokk ba xam ni nit ñi mën a am nga dem ca Poutine mais nekk di guerre. di xeex Amérique. pour mu dimbali la Ukraine interposé. mu dimbali la blé. nga naan ko na la may loo defaree mburu. mel ne benn xale bot ñun na ñun la yem. ah déedéet kaddu kaddu africaine la demee kaddu kaddu ah, africaine de l' <laughs> union africaine. ñoo ko mandaté quand même pour mu dem pôle pôle bi ak seen i morom. Ah, waaw mais nga xam ne mënuñu tax ak Afrique li mu am ci alal. amuñu lu ñu def ñu jox Chine Chine mu leen tabaxal tabaxal seen seen headquarters. Ah. ba nga xam ne euh, euh, caméra yaa nga fa ne lu ñuy wax ñun ñu dégg ko union africaine nañu wax. te nag ñëw na leen ne leen nee na laajuñu leen ñaanuñu leen. dañoo bëgg a jokkalante nañu fexe ba bële beeg yu mel noonu ñu jokkalante dañ ko yénni te ñi ko yénni ña nga ca Europe nañu waxante dëgg ko yónni ña ko yénni ñoom Macron ñoo ko demal nga waxee loolu ban leen ko fa yóbboon <laughs> ah, ah. <laughs> yéen daal bëgg daal wax ngeen ni Macron ah mais mais léegi dafa am dafa am benn question boo xam ni ah. souvent ñun dañ koy posé ci plateau yi bi Covid bi ñëwee nga xame ni dañu ne président Macky Sall moo jóg daal di ne il faut que ñu bay li ñuy dundee dundee li ñu bay tout ça mais wax ko depuis Covid mm-hmm. Ukraine bi ñëwati ñu waxaat loolu. daan na il faut que ñun ñu bañ a gàddaay jëli feneen di ñëw mais Sénégal ban problème moo am avant de parler de l' Afrique ba nga xam ne loolu ñuy wax ci discours yi mënuñu ko fay appliquer ba ñu doy loolu ñu am. mal gouvernance économique maanaam autosuffisance bi ngay wax léegi déjà. c' est un problème mal gouvernance économique. quand tu as un pays où l' de l' État est dans les coffres des alliés du pouvoir. <laughs> naka ngay investire pour créer régler ce problème la quand tu dans un pays où durant le Covid on a sorti un milliard et quelque. mille milliards mille milliards pardon mille mille milliards. waaw xalif général des mourides ñu ngi koy ziyaar di ko ñaanal gudd fan ak wér. taxaw jëkk a contribuer. Mm. Sénégalais yi joxe. nga yëkkati xaalis jox sa mbokk. mu ne ko dëxañ kenn xamul fu mu gis man de ma dëkk sax nii gis ñu dara nit ñi dañu mujj nga ñëw taxaw nag nii. man du ma rendre kenn compte mais mës nga gis xaalis bu ñu jox nit. Hmm. mu taxaw ni du ma compte. Covid bi newoon nañ ci danañ. waaw mais am na na amoon na nag ci mujj gi. ah euh, benn ah, comité de ah, suivi. Ah, dirigé par le général boo xam nga man dañ ma woon ci comité de suivi bi. waaw ni ma naa ñëw bokk ci comité de suivi bi ñu wax ko pour ci mel ni média man dama leen ñëw ma. yow demuloo da nga bañ a dem. damay du ma dem ndax. est-ce que boo demoon transparence mën na si a niin. nii na sama nii na sama ma <laughs> man leen ñëw ma. loolu ba ñëwee ñun Yacine Fall bokkoon na ci. kon yow lu tukkee ci lu tukkee ci comité de suivi bi dalul sa xel. dalul sa comité sama xel dañu dañ comité dañu waroon woor ay expert nañu ma woo man xam nga man évaluation rek laa mën dama ko dama ko liggéey pendant ay ati at ndox dañu ma woo ak samay morom ma tànn équipe rek ñu dem évaluer leen nañ ko def bu ñu amee fit rek nañ ma woo ma évaluer de suivi <laughs> billahi wala dama yoon nag du ce sera pas partisan parce que man su may liggéey en tant qu'expert dama koy teg ci su ak feneen boo ñëwee xool ni yox yi am parce que nag je n'ai que ma réputation en tant qu'expert may kooku dama ko fayee kenn jaralu ma ko waaye dama la ni Sénégal fii du ñu invité parce que lu tax xaalis bi ñu jëlee kër Farba Ngom. Hmm. bu ñu ko dugaloon Tiwaawan xale yi ay bébé dañ fa calciné. xaalis boobu ñu ko yóbbuwoon mbaan kon tey jii nit ñi 1700 acres dañ ko bay ñu am ceeb am dugub am mboq. farine farine farine bi baawaan ñu transformé ko foofu sur place indi ko ci meññee jox ko ñu defar mburu ñu waxante dëgg. est-ce que blé bi yaakaar nga ni mooy mooy suñu orientation est que war ñoo mën a xool beneen façon dundin boo xamee ni peut-être duñu ko soxla di ko importer feneen. lii moo tiital ma xam nga Macky Sall li ko tiital. bëggul deux mille dix deux mille vingt quatre dafa tiit. ah oui parce que xam na ne dina wàcc. te dañuy teg réew mi ci yoon yoo xam ni incha allahu rabbi dina doy waar trop. résultat yu rëy na fi génn. yan yoon ndax on est que 17 millions d'habitants lépp am nañ ko. yàlla nañ ko yàlla fekkeeloog jàmm ak salaam mais bu boobaa sénégalais yi dinañ xam ni réew mi mën nañ ko defar mën nañ ko jubbanti ci lu gaaw en trois ans deux mille vingt quatre ba deux mille vingt sept. loolu la fi gars yi waxoon de. mani la Ablaye la mani la ku dama ni. programme xam nga man. benn parti politique laa mos a bokk muy RND de Cheikh Anta Diop. te en quatre vingt laa ci génn. may rek man ah. man néolibéralisme dama ko gëmul. néolibéralisme c' est pas la réponse car là c' ki par économiste qui parle. dëgg la. c' est pas la réponse pour nos économies qui ne sont pas des économies marchandes. Mm -hmm. économie bare su bare bare bare sous-emploi. Mm. bare secteur informel. Mm. bare ay baykat. dégg nga bare ñoo xam ne ñi làkk bi nga xam ne bi moom ngay gouverner jànguñu ko. waaw lu bëri. waaw mais tamit am potentialité yu rëy yu ñu clé mënuloo ko teg rek ci économie marchande konk newalaare libéralisme c'est pas notre réponse. mais état providence tam amatul fenn de. ah état état centralisé non état sax France. mais yàlla économie mixte am na yow itam xam nga yow yàlla kas kas sutukat nga jeune xam nga ne am na dëkk dëkk yu bare yoo xam ni état providence doxalu ko mais investissement dans l'humain foo ko defal doo dem hmm. ah. kooku amul benn kooku y' a pas de secret. mais ñoom mel na ni ñu ngi ji économie sociale et ah, solidaire. war a ci làmmiñ la yem rek. Ah. <laughs> économie sociale et solidaire. économie solidaire seen morom <laughs> ak ñi nga xam ne dañuy luxus xaalis ñu bàyyi leen ñu ñu feebar rek ñu seen bopp dafay métti ñu génnee leen ñu continuer luxus. Hmm. Sénégal mënul aw yoon ndax d' alalu réew mi li ñu moom ñun ñu koy fay impôt. Hmm. muy sunu xaalis dañ ko caxat caxatee. pour ëlbatiku nag di lebi fii laa ko waxee alalu réew mi. dëgg ngi ci keesu kër Farba Ngom. Hmm. yàllaa ko gis nga yàlla. bis bu ni moo ñu firnde. yàlla moo leen di weer tous les jours yàlla moo weer Bougazelli devant l' assemblée nationale. yàlla moo weer Farba Ngom te kenn woowu ko ba tey de xam nga un pays de droit moo tax recul démocratique bi ñu lay wax bi dafa am parce que am na yoo xam ne ba amee ci dëkk. te te te sentif woowu la. un milliard de francais CFA presque daanaka. waaw presque. Euh, bu ñu jëlee ko ci kër loolu te kenn dégg ko. mais Macky Sall has to go. Oh, of Macky Sall has to fag mu dem mook ñi mu àndal fatt nañu sonal nañu <laughs> xiif nañu mar nañu lekkuñu naanuñu fajuwuñu amuñu sécurité te boo ci laal njàng jànguñu te boo ci laal rek secteur boo laal rek. nit ñaa ngi jooy xoolal ñaata xaalis la ñu de la ñu amee le secteur privé national. Mhm. kon nag réew mi yoon wi ñu ko awalee économiquement baaxul. mais situation bi quand même. mais c'est une situation mondiale morose. non non non la situation moi je parle d'abord de la situation du Sénégal. non parce que li ngay wax nii léegi non je parle de l'économie sénégalaise. ok son orientation. Mhm. structurelle oui. les choix budgétaires qui son faits les choix d'allocation de ressources financières yi am. tamit xaalisu réew mi ñi ñu koy fay ak ñu ñu koy jox tax réew boo koy tabax danga koy tàmbalee ca la mu moom la xaalis ba mu jëli ci ñun ñu fay ko impôt ñun ñëpp foofu nga war a tàmbalee moom naan je parle de la situation du Sénégal ni mu jëmee boor xaalisu réew mi ni mu jëmee boor te fi mu jëm jëmul du yoon defuñu ko ci askan wi defuñu ko ci wutal ñi liggéey defuñu ko ci suñu secteur privé national mm. amul benn pays buy développé te doo am un secteur privé national fort waxuma état providence de. Mm-hmm. un secteur privé national fort ki unis kii xam ni dafa nekk au cœur du processus d'industrialisation. comment naka la ñu mën a. patriotisme économique le secteur. Ah. patriotisme économique Momar Momar wax na loolu. est-ce que loolu la ñu war a def pour mën a impliquer nos acteurs. lan euh, économique privés. patriotisme économique ah oui patriotisme économique dafa war xam nga amul fenn. demal Amérique di nga jël sa sa sa sa compagnie jox des secteurs stratégiques di ko joxe. xam nga la tu te rappelles de la grande grève de la Sénélec fii ci courant bi te booba Sénélec bi ñu koy joxe. bi ñu bëgg a joxe e, Elio Hydro-Québec. waaw ma dem ba soog ñu koy jox bi ñu koy joxe fii les grandes grèves ici. le ministre le le frère de Macky Sall dafa ñëw ci ne ñun mënu bëgg xam nañ li mënuñu ko def mais institutions yi ñooñu